Euh, public boobu làmb tradition la ñuy seetaan euh, ci wax ci rafet yooyu ñuy wax jëmale ko ci làmb ji jëmale ko ci Assane euh, kon Assane dimanche yan disposition nga jël ak tamit billet yi ñaata la ak heure bi ngay tijji làmb ji ak inscription mbër yi ban heure la ak kañ lay arrêté ndax dañu limité mbër yi bala limité wuñ leen. waaw ngañ jërëjëf xam nga làmb moom du gan ci ñun. lutte avec frappe moo gën a metti lutte simple. jël nañ ay sécurité bu baax si biir ak si biti parce que làmb lu simple moom garaawul organiser ko yomb na trop dinañ sécuriser làmb ji yëpp bier bi yomb na trop parce que xam nga bisu Aziz sama bis bu ñu ko boolee dañ koy yombal amateurs yi 1500 lañ ko def ku ne woon na ma ne ñu yokk billet yi mais munul nekk. parce que dañu bëgg stade bi teel a fees ñu honoré ñëpp am na ñoo xam ne comme li nga wax sànq ñu ngi ci sonn ci làmb. ñu jël leen ay quelque rek ñi ci des bari na trop ku mel ñoom Lamine Thiam dogoo ngañ jaañ ñoom garmi di jàpp ñu ta bàyyi dañuy jàpp chaque jour ñu ngi leen di sant bu baax ñoom Aziz Samb ñëpp ñu ngi leen di décorer jour boobu euh, gën a woon ne làmb ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi beneen combat ñu décorer ñeneen mais jour boobu lépp loo xam ne taaru làmb la ngañ ñu ngi ko ci wut di ko indi parce que baabu ngoom indi nañ ko indi mayandab andi euh, Khady Diouf séeréer yëpp kontaan nañu loolu pour ñu daje si benn jour benn affaire la. Euh, euh, ban heure la inscription yi. waaw trois heures lañ koy commencé 17 heures ñu arrêté ko. arrêté ko waaw. ok léegi ci loolu stade bi nañ ko tijji ban heure. stade bi nañ ko tijji 2 heures. 14 heures nga tijji la 14 heures nañ tijji stade ndax gaa yi teel a ñëw. ndax gars yi teel a ñëw. mën a teel a préparé. teel a préparé ñu àndandoo feet bis bi. parce que jeunesse bi ñoo xewle. am na ñaari invité d'honneur yoo ci bëgg a taftal kan ak kan la. waaw dinañ invité d'honneur suñu papa Alioune mu ñëw ci bis bi. ñu ah. invité Pape Mayel Diop. directeur aéroport. directeur aéroport di invité Pape Samba Ndiir. Pape Samba Ndiir. sama papa la chaque jour mi ngi sama ginnaaw. Mm-hmm. di invité kilifa yëpp nag di invité suñu papa Baye Alé Ndiaye. Mm-hmm. mu ñëw nekk suñu ginnaaw oof ñu. di mm-hmm. invité ñëpp di invité képp koo xam ne bëgg nga làmb nekk suñu xarit nekk suñu waay ñu ngi lay invité ci jour boobu. jërëjëf Assane euh, ci appel boobu nga xam ne def nga ko euh, ci laay sorox sax euh, sa sërxal jaale waale waa Medina di ñaan yàlla lafa am barka démb xale yooyu nga xam ne loru nañ fa. Mm-hmm. yàlla nañu dekkee àjjana te it yàlla nañu rëccu sax liñ fi doon def ay tuut tànk lanu doon jàng xam-xam ba loru ca bërëb bañ doon jàngee xam-xam. kon defe naa ne jàmbaar bu daanoo sa waar wa jaanam wàcc na xale yooyu di xam-xam lañ doon jàng boo loru fa. Mhm. Eh, di ñaan sëriñ bi it bi nga xam ne mooy kilifa gi Thierno Madani yal na yàlla guddal fanam ndax waa ja jàngal xale yi ca kër googu la jànge waaye nag dafa ber daaraam foofu dafa ber daaraam bi mu mokkalee ca Thierno Madani dafa ber daaraam kon ca njabootam rek la bokk kon ci moom laay jaaree mass bi. Mhm. Thierno Madani ñu ngi koy ñaanal. yàlla na sut fan ay waajuram yàlla na yàlla yégal ko ci maqaama maamam Cheikh Omar Foutiyou euh, dem naa fa démba waxtaan nañu ci groupe turu groupe Futurs Médias ma seeti ko vraiment mu wax ci wax ju rafet taxaw taxawaayu kilifa kon Thierno Madani ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak yàlla yokk barkeem euh, mbokk yi defe naa dañuy ñëw nag ci Aziz ci appel bi nga xam ne moom lay mujj def ci bés boobu waaye laata ñuy dem loolu la 9 ci stade Demba Diop. diggante Ama balde ak ki nga xam ne mooy ama neex diggante Tyson numéro 2 ak ki nga xam ne mooy ne ko rël Juan ak Cobra ki nga xam ne mooy Maodo ak euh, xale bi nga xam ne euh, mooy Cartouche ak diggante euh, digganteem di Ronaldinho Abdou Aziz balaa ñuy dem ca jàkkaarloo ba am na tuuti changement rek ci diggante Boy Naar Juan lan moo indi Cobra waaw ngañ xam nga comme ni nga ko waxee rek euh, le neuf dañ ci programme woon muy combat bu am solo mu waroon dox ci diggante Cobra mu waroon dox ci diggante Boy Naar ak Juan yàlla def mu am benn désaccord bu am suma diggante ak Boy Naar waaye loolu du yàq suma diggante ak Boy Naar dara Boy Naar suma nit la suma frère la suma xarit la liggéey bu taxawee nag la liggéey ba yee loolu la ñuy def suñu d'accordul dañuy jël contrat bi teg ko ne la mën a d'accord ci jëmi jamono. su ma digganteeg moom amul benn problème booy naa da daan ñëw di ma seet si. Mhm. bëgg combat nekk su ma nit aussi amuñu benn problème d' accord ñu ci condition yi mu bëgg contrat contre combat bi demee moo tax ñu jël ko teg ko nële duñ ci polémique duñ ci wax jël beneen mbër boo xam ni tollaan naa moom dayoo te amateur yi namm nañ ko muy Cobra mhm. mu war a bëri ak Juan. mais moom mi ngi jógee Suisse. waa mi ngi jógee Suisse xam nga Suisse ak Espagne moom. Mhm. moom combat boobu moom combat de de la diaspora lay tudd rek. xam nga Boy Naar moom bu waree euh, comment dirais-je Juan su waree bëree ak Cobra nga xam ne Suisse la nekk Juan jóge Espagne yaakaar naa ne boobu combat boobu waa Europe ñoo ko moom waa diaspora bi ñoo ko moom. Euh, loolu daal moo dugg ci changement bi dugg ci changement waaye lépp loo xam ne lii daal disposition jëloon nga ko loolu ma nga ca place am. waaw lépp jël nañ disposition yëpp jël nañ ko ba tey ci mardi bii dem naa ba CNG joxe naa fa reliquat wu mbër yëpp. Mhm. régulariser naa combat yëpp. yëpp mbër yëpp seen reliquat. liñ leen war a fay lépp yóbbu naa ko CNG ba mu mat sëkk ñu régulariser tous les combats yi war a ci bis boobu yëpp régulariser nañ ko mbër yëpp apt nañ. Hmm. mbër yëpp pare nañ aussi pour jëm le neuf ci drapeau de la femme. comme ni ko waxee rek. ñu wat ci sargal jigéen. Hmm. sargal ki képp koo xam ne tey jigéen nga ak foo mën a nekk ci àdduna xam nga jigéen ñi dañuy daj ay coono yu métti. Hmm. ñun góor ñi ñoo leen mën a teral ñoo leen mën a sargal ñoo leen mën a delloo njukkal. moo tax ñu fas yéene ci njukkal képp kuy jigéen. Mmh. bisu le neuf boobu bu ñu jógee ci le journée international de la femme muy le huit mmh. le neuf ñu teral leen ci làmb ji nga xam ne mmh. moom la ñu yàlla jagleel ci lañ leen di teral ndax nit ci li nga am nga koy teral moo tax làmb ji moom la ñu am dinañ ci teral jigéen ñi la neuf stade Demba Diop vraiment euh, loolu euh, le neuf la euh, ak Aziz production ñu jógee foofu nag le dix maa ngi ci woo képp kuy suma soppee képp kuy suma nit képp kuy suma xarit bëgg naa ngañ su may ñëw ànd ak minimum lu mat cinq cent personnes ñu topp la lu mat juróomi téeméeri nit laa bëgg a àndal ñu ñëw ànd ak man ñu dem stade sargali Assane mhm. delloowaat ko njukkal xamal ko ni ko doomu ndayam nii la ñëwee frère am nii la ñëwee maa ngi ci woo Sénégal yëpp mhm. di ci woo promoteur yëpp mhm. di ci woo Gaston Mbengue di ci woo Serigne Modou Niang di ci woo max Petit mbay ma nekk ca France ñu koy nuyu de passage suñu grand la ñu ngi koy woo di ci tam aussi fàttaliku waale suñu suñu mag suñu xarit lu Nicolay di ko ci fàttaliku waale di ko xamal moom ci bis bi la bokk moo du Niang Pape Abdou Fall ñoom Kanji ñoom Baye saw suñu jigéen Ndeye Ndiaye Tyson ñoom Amina bàyyiwuñu kenn ñoom top production bisu promoteur la daal la na képp kuy promoteur ñu ngi lay woo ci bis boobu di la xamal ni bis boobu sa bis la bisu doomu nday la bisu Assane la na ko ñëw ñëpp fekkee ndax ni ko Assane commencé ci man dina ko yeggale bu ci ki gën a mag wala ci gën a ndaw ci promoteur yi kon Sénégal yëpp maa ngi leen ciy woo di ci woo suma ay mbokk di ci woo ñëpp ñu xam ne ni daal suma ay soppe lañ suma ay am di jàmm lañ képp koo xam ni daal tey yaa ngi bëggee làmb tey bëggee Aziz Ndiaye Aziz mi ngi lay woo le 10 ci drapeau bi ko Assane Ndiaye jox nga xam ni daf ko ko sargale maa ngi koy delloo sumay soppee soppe yëpp di wax daal bis boobu seen bis la nañ ci ñëw ànd ci ak man. jërëjëf euh, ci appel boobu nga xam ne Aziz Ndiaye def na ko dégg ngeen Assane tamit woote gi mu woote le 10 euh, ci stadium Iba Mar Diop lu traditionnel mise bi di 3 millions euh, ci noonu nag la ñuy ñëw ci cappaandawu émission bi mbokk yi di leen fàttali programme bi ci bëre dóor bi. Euh, Ama Baldé Ama Neex le 9 mars la ak asi production Saalum Saalum ak Fëgala euh, kooku ñu ngi koy bëri le 24 mars ak Baye production euh, Zarko Mam Balla ñu ngi koy tëgg vendredi 29 mars ci stadium Iba Mar Diop diggante Boy Bawol ak Tafa Boy Bambara kooku dina am le 30 mars ak Ndiaye production diggante nag ah avril bi nga xam ne nag nee naa leen Leewtoo se resserre foofu diggante kan la ah ma Mandione champion ba gëm sa bopp ak kan léet naa giri Bordeaux ba mooy kan mooy Papa Sow yaakaar naa ne ma nga takk ca booru France di waaj a ñëw di fël toog bàyyi ma njoon mi nga xam ne mi ngi jóge Italie kon ñoom ñaar la premier avril la ci stade Demba Diop ak Aziz Production kooku daañu si ñëw waaye maa ngi leen di jox rendez-vous alxemes ji en direct ak Aziz Production ci face à diggante Ama Baldé ama neex ak la nga xam ne moom la ñu war a demee ca làmb ja Aziz ko fa révélé ak yan surprise la euh, dence ca làmb ja Aziz ko fa révélé nan la ñu war a defee le 9 ci stade Demba Diop na ko révélé ci plateau en direct 20h45 euh, ci seen télévision Futur Média en direct euh, mbokk yi ci noonu la ñuy ñëwee nag jeexal émission bi di gërëm ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun Maawu Cissé ci réalisation bi Atanar Ba ci caméra bi ak Yaya Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ci liggéey bi ak tamit li nga xam ne tey liggéey bi ñu liggéey tout une journée loolu ñu ngi leen ci masawu bu baax a baax a baax a baax staff Agi Production te man ma jiital ca Baye Ndiaye ak Zal maa ngi leen nuyu bu baax ci turu famille El Hadji ak Mohamed suma doom suma sët Mohamed maa ngi lay nuyu waaw Mohamed di nga ñëw làmb waaw yow maak yow ay ànd waaw yow maak yow ñooy ànd làmb ja Mohamed suñu doom suma sët suma jarbaat mi ngi nii euh, Mohamed Ndiaye moom it dañuy ànd ca làmb ja xam nga àdduna nii la bu ëllëgee da koy nettali ay moromam léeg-léeg xale nettali dara ay moromam ñu foog ne da koy da ko sos fekk da ko fekke da ko fekkee da ko fekkee dal na ku ne léeg-léeg nga nettali loo xam sax dañ daan du sa at loolu yëpp ci jamono la kon mbokk yi jërë ngeen jëf euh, di leen jox rendez-vous le 10 mars Thiès Sadio Iba Mar Diop drapeau Aziz Ndiaye ci lutte traditionnelle mise bi di 3 millions euh, ci loolu lañ leen di tàggoo di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm doolu ñu jàmm doolu ko ci réew mi doolu ñu sutura faj aajo yi te jiyéen ñi nga xam ne ñu ngi jëm ci seen bés nag ah stade Bangok euh, le la le neuf bu leen ko kenn yóbbul Aziz am na surprise bu mu bëgg def ci jigéen ñi ca géew ba am na loolu duma ma ci kii sax dama koy junj noonu rek waaye di leen fàttali ne le 10 ci stadium Iba Mar Diop waaye Assane dafa am invité spécial boo xam ne Abou Bilal Kouthia te Kouthia bëgg na fa jouer ñaari ñaari ñaari sketch yoo xam ne daf ko bëgg a may euh, publicu Adrien Senghor yaakaar naa ne mbokk yi ñu ngi leen di jox rendez-vous euh, dimanche ci stadium Iba Mar Diop ngeen jëf wasalaam